directeur la jàmbar production woote waaye gaa yi daa ci lu ma bëgg a ñëw rek tuuti rek li ma bëgg a ñëw ci lu ndaw la ci làmb lu tuuti rek gars yi noppi bi makan meng noppi ci làmb guddi yi ñu toll makan meng doomu gasoo meng noppi gi mu noppi ci làmb Liko waral la leen wax gaay nopp bi makan may nga noppi calcul bi am ci lamb la leen wan ngeen bayiko xel bu baax te lolu mu ngi suñu kanam te di ko gis ci kàttanu yalla diggante Boy ak mutlu muy dat bo xamne ni wa Gaston Production ñu ngi ko bëgg régulariser pour le 1er janvier waa Gaston production dañoo bëgg régulariser combat Modou Lo Boy Niang numéro 2 le 1er janvier Lolo waral nopiou Makan Meng ak Abdoulahan Ndiaye bu mbett kenn nag ci làmb calcul boobu liko waral li waral calcul bobu moy Ama Baldé digganteem ak Modou Lo la 5 novembre bii mu nekk Ibrahima Diop date bi mu yor contre Gris Bordeaux ñaari date yooyu ku ci def def lu ba issue yooyu sa date yi nga yor na la ne la Modou Lo le roi des arènes ci fan yi néew dingeen dégg ñu ne régulariser nañ combat am jël jox nañ ko date ci diggante Modou ak Boy Niang le premier janvier lii ma leen wax neen ko bàyyi xel bu baax ci làmb ndax Makan Meng nekk na koo xam ne nii ci làmb Makan Meng nekk na kenn koo xam ne nii ci làmb ku ku ku ku ku ku ku lëndëm booy wër nit ku lëndëm ci làmb ñëwal ba ci makan nga téye ko il est très dangereux digganteem ak Abdoulaye Ndiaye su ngeen gisee ñu mën a def ñaari ceddo lañu lewoonal ne yenn combat yooyu nekk suñu kanam muy diggante Modou Lo Ama Baldé le 5 novembre bii ñu ko réalisé bu ñu sàgganee promoteur boobu di li Nicolas ba mu rëcc ko Ibrahima Diop mi ngi tëgg Ama Baldé Gris Bordeaux bu sàgganee ba date bi mu yor mu rëcc ko le 1er janvier ba ñuy baaxal munu cee jàll ndax ci lañ bëgg rek raser combat Modou Lo ndax proposition yi nga xam ne ni tey jii moom la waa ki nga xam ne ni tey jii Kajoor production bëgg bu fekkee ne waxtaan bi gars yi bëgg ak seen diggante ak waa Fass am premier mooy calcul bi nga xam ne ni tey jii mooy combat Ama balde gri Bordeaux pour ñu arrière ko dañuy arrière combat ligue nicolas bi nga xam ne ci la tëgg Ama balde ak modlo Lo dañ koy avancé ba décembre loolu lañ bëgg pour ñu mën a arrière combat gri Bordeaux Ama balde te fii may wax ak yéen nii fii may wax ak yéen nii Kalkinu Makan Meng mooy ak waa CNG mooy le 1er janvier date historique boobu ci ngeen nar a dund modlo ak Boy Niang muy combat bo xamni nak combat bu jara baye xel la te structure bi ko teug moy ki nga xamni moy Gaston production mi nga xamni ne Makan Meng mo fa nek ak Abdourahmane Ndiaye seen noppi gi ñu noppi ci lamb yépp calcul bi la ñuy sóoraale te bu leen fàtte nag fusion bi fusion bi bi mu amee ci diggante Ligue Nicolaï ak Albourakh ba léegi Makan Meng gisuñ ko mu wax gisuñu Makan Meng génn fenn dana tekk rek man mii di wax ak yéen cokkaas naa ko ci côté fusion bi ne ko Makan temps yi da nga noppi lool lan moo waral bokkoo ci coow li mu ne man daal maa ngi sama ruq te bu ma génn ñëpp da nga xam ne génn naa. loolu nag waxi ceddo bi la waxi makkan la du samay wax mooy diggante Modou Lo Boy Niang moo tax man leen gars yi combat yi fii ñu jëm fii ak le premier janvier combat yi am date yëpp yëpp di grand combat yi am yëpp combat bu ci sàggan ba sa date nga ñàkk ko pour nga bërewaat problème lay doon te kii di Ibrahima Diop Ibrahima Diop mu ngi may dégg combat Ama Baldé Gris Bordeaux noonu lu doy waar dafa àndee lu doy waar loo xam ne ko sax wax barki El Hadj lu doy waar moo nekk foofu gars yi calcul bi nekk ci kaw ci mbër yu mag yi calcul bi nekk ci kaw oh. oh li El Hadj Bécaye Mbaye doon sama xel ñaaw na bilaay sama xel mi ñaaw na sama xel ñaaw na lool te lii ma gis ci kaw man nag samay wax du neex ci li tax en général du neex mooy li gars di négocier ci lu bari man duma ko négocier ndax man réalité làmb rek moo fi bàyyi Fadam làmb tax ñu xam ko buñ ko seetaanee làmb tax kon lépp lu làmb laaj rek naa ko wax fi waaye gars yi diggante booy ñaam fii may wax ak yéen nii nii nii nii demande jóge na ci Gaston Production jëm ci CNG te bu ngeen maytu date boobu di ngeen dégg ñu ne jox nañ ko Modou ak Boy Niang numéro 2 mu pour le premier janvier. kon gars yi calcul bi nga xam ne nii moo am ci diggante Gris Bordeaux Ama Baldé amaat ci diggante Modou ak ki nga xam ne nii mooy Ama Baldé le 5 novembre le 12 le le 12 le 12 novembre ci la ki nga xam ne nii mooy Tapha Tine Tapha Tine digganteem ak Eumeu Sène ñetti dat yooyu ba ñeent te am na benn date boo xam ne gii mënaguñ ko wax ndax jàmbaar production demandé na ko Gaston produit na ko CNG pour Siteu ak la ak am na date boo xam ne mu ngi seen diggante ki diggante décembre ak yooyu date boobu mënuma ko wax Siteu ak Lac de Guiers numéro 2 na ngeen ko ci sóoraale. moo tax promoteur bu ki sàggan ba sa combat rëcc la guddi yi ñu toll promoteur bu ki sàggan ba date bii nga yor mu rëcc la gëmal ne saison déwén yow yow fii ba après premier janvier soo tax nga tëgg sa làmb waaye daal lii ma leen wax te ngeen mën ko dégg lii ma leen wax te ngeen mën ko dégg Luc Nicolaï Enco jàpp naa ne le premier le cinq novembre ci la nar tëgg diggante Ama Baldé Modou Lô le novembre ci la nar a bëre combat Eumeu Sène Tapha Tine jàpp nañ ne tamit Ibrahima Diop Kodiak production moo war a njëkk a tëgg combat Ama Baldé Gris Bordeaux waaye nga gars yi ñetti combat yooyu bu ci tuxu bu ci tuxu ci date bi ñu yii ñu leen wax ku ci sóoraal le premier janvier ñàkk nga ko ndax le premier janvier modlo mo ci bëri ak boña modlo boña di ngeen deg na yàggut ne le premier janvier le gay yi bëgg date historique la nag ci làmb te le premier janvier bobu amna yenen promoteur yu don xalat pour ñu pousse yenn combat pour mën ko yobul le premier janvier non non ceddo ba nga fa de makan meng ceddo pire mo Abdoulaye Ndiaye na ko bàyyi xel nag bu baax a baax a baax a baax a baax ndax fii làmb toll combat royal yi ñu jëm combat royal yi ñu jëm novembre décembre ba le premier janvier di ngeen ci gis combat yu bëree bëri bëri bëri bëri waaye di ngeen ci gis combat yu métti métti métti am na ñaari dat yu nekk ci diggante bi ñaari dat yu nekk ci diggante bi benn bi jàmbaar production teg na ci loxoom ci diggante Siteu ak Lac de waaye lii ma leen di wax na ngeen ko bàyyi xel bu baax combat yu am solo la ñu jëm combat yu am solo lañu jëm ci carrière rawatina ci diggante Ibrahima Diop mi nga xam ne moo tëgg diggante Ama Baldé Gris Bordeaux fon la jëm ak waa Fass ci semaine bii ñu jëm bu essayé Ibrahima Diop combat boobu bu ci semaine bii ñu jëm pour nga tëggaat combat boobu combat bu métti lay doon pour nga tëggaat ko ndax combat boobu date bii nga ci wax ni bu rëccee date bii nga ci wax ni bu rëccee ba jàll te tëggoo ko ci bis bu Modou Lo daanee Ama Baldé lan moo ci am bis bu Ama Baldé daanee Modou fekk si te tàggalikoog Lac de Guiers numéro 2. bu Tapha Tine am Eumeu Sène. cay hmm. euh, làmb làmb moo lëndam am na loo xam damay junju rek du ma mën a wax lépp nag damay junj rek damay junju rek il faut tamit ngeen may jëli fi may waxee ndax am na loo xam ne mënu ko ba jeex. am na loo xam dama koy cof rek dama koy cof rek jàll yéen nag yéen mën a jëli jëli ci def am na loxo xam ne yéen koy jëli mais du ma ko duma ko mën a jeexal ba mu jeex tàkk waaye daal lii ma leen di wax ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax Ibrahima Diop date bii mu bëgg a tëgg nii date bii mu bëgg a tëgg nii bis bu ko waa Fass bërilu ci combat bii mu jëm bis bu ko waa Fass bëriluwul ba boobu romb li Nicolas tëgg diggante Modou Lo Ama Baldé le 5 novembre le 12 décembre le 12 novembre ñu tëgg combat Eumeu Sène Tapha bu Siteu ak Lac de Guiers numéro 2 tàqalikoo te ca diggante boobu lañ nar a bëre Tapha Tine tàqalikoo Eumeu dama làmb dina jaxasoo de le premier janvier bi nga xam ne moo nekkoon calculé promoteur yi bare bare bare bare makat meng da koy teg kanam bii man Fadam maa leen ko wax te fusion bi am ci diggante Ligue euh, Ligue Nicolas ak Alburax arrangé wul makat meng makat gëmu ko sax gisu leen sax gisu leen sax moo tax le premier janvier promoteur bu koy jéem a laal yaa ngi ci erreur bu doy waar yàggatul yàggatul combat amable de Gris Bordeaux combat amable de modlo combat tafatine Tine Eumeu combat Siteu de guerre numéro 2 làmb ngi bëgg a jaxasoo nag làmb ngi bëgg a jaxasoo de calcul bi li li doon sauver lamb ci suñu kanam li doon sauver ji lamb ji mooy le premier janvier kenn dem cee teg bakkan te Makan Meng man maa lañ ko wax teg na ci biliyam le premier janvier ci la bëgg a tëgg combat Modou loo Boy Niang hmm, bu mu leen bett de date boobu bu mu leen bett de di combat yoo xam ne nii nag promoteurs yi amagum date nii ci combat yi ñu jëm ko ci sàggan ba sa dat rëcc la di nga bëgg